Oumar Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi nga nekk njiitu SOS euh, littoral premier ministre Ousmane Sonko dal di wax ni nañu dakkal opération foncière yu am ci onze sites yoo xam ne ñu ngi fii Dakar Mbour ak Saint-Louis ci diirug euh, ñetti weer euh, des ko sax moo war a taxaw ci mbir mi pour ñu appliquer la mesure lan mooy sa appréciation ci décision boobu. waaw décision boobu ñu ngi koy rafetlu. alors euh, mais xam nga mesure conservatoire yi biñ ko génnee ñun amoon nañ si ab taxawaay ne mesure conservatoire yi ñu ngi ñaan nguur gu bees gi ñu dem très loin voilà très loin bi mooy ay audit en profondeur voilà ñun 2020 dañu posé woon juróomi question au régime sortant qui a fait quoi avec qui il l'a fait pourquoi il l'a fait comment il l'a fait quand il l'a fait loolu nag mooy saytu bi war a am ci littoral bi warul yem rek si ay mesures conservatoires après gis ne ay poche am na fa après le nouveau régime dem jël ko li ñu bëgg mooy nouveau régime bi ñu ànd ndox moom d'abord ñu ngi dénoncer le fait que ñu mettre une commission en place jël ay structures étatiques déconcentrées et tout mais amul ben organisation de la société civile mais ñëpp xam nañ un fonctionnaire il fonctionne mënul nekk foofu di dénoncer quoi que soi donc ñun nous sommes des voix habilitées et libres ñun dañu waroon boole ci comi commission boobu mais ñu mën leen wax lii xew mën a jonox ñoom wax leen dëgg mën a indi suñu expertise ba pare indi ay proposition mais d'autant plus que mais on parle du littoral mais mais SOS littoral nekk fii Sénégal invité wuñu ko te ñun avant ñoom ñuy ñëw Macky Sall avait mis un comité mixte de réflexion sur le littoral Et on était à la table du gouvernement avec cinq ministres de souveraineté. Amadou Ba moo doon présider commission boobu ñuy réunion ministère ministère des finances voilà léegi nag ñuy nan lañ mën a waxee fii question littoral SOS littoral liggéey ba bëgg a dee ba pare euh, boolewuñu ko si sa ñoom bi ñu faloo bi ñuy door a gagné man les pastefiens m'ont approché en me disant est-ce que vous avez quelque chose sur l'usine de dessalement mais vous vous rendez compte autre chose j'ai écrit au premier ministre hein, en mettant dans la lettre d'audience euh, énormément de dossiers, dont le dossier de Egeboss. Avant ñu koy dugal fii nga xam ne c'est le décret 2022 1552 et heureusement sax ñu dugal ko fii en 19 famille la bu spolié à Ouest Foire ñu jël suuf soosu jox ko benn député Mbour ah Macky Sall def décret boo xamante ne xamul lu géej gi di ay enquête gendarmerie yoo xamante ne kenn xamul nan la enquête yi tëddee ah benn nébuleuse foncière boo xamante ne et encore il y a euh, de la grande mosquée moom la concerné au premier plan c'est euh, l'imam ratib mais non il faut que que euh, ak ah, Ousmane Sonko daal ñu ngi koy ñaan voilà moo wax jomay Diomaye Faye son excellence ñu ngi leen di ñaan ñu am nañ courage moo leen indi fi ñu nekk nii mais nañ xam ne le peuple sénégalais y des gens beaucoup plus courageux que waaye yàlla nag mooy fal moo leen indi fii te peuple bi accompagné nañ leen ñu ngi leen di ñaan jub jubal jubbanti boobu ñu nekk si ba pare bon seen mbir yi mu am jeexital jeexital bi mooy ñi nga xamante ne boo seen suuf ñoo ko moom de avant les indépendances ñu delloo leen seen suuf je parle des fonciers de l'aéroport Ouakam Ngor Yoff dañu war a am ku ñu yokkoo parce que plaidoyer boobu maa ngi si ah te amuñu si benn ki ay acquiescement lay mais du n'importe quoi maam booy jaaw ñëw fii di def ay négociation pour am ay quinze parcelles ci du n'importe quoi ñu xam dinañ ko waxi ji bon léegi Ousmane Sonko na régler la la le foncier de l'aéroport voilà bon léegi loolu bu loolu tëddee affaire u dagg xool fa boobu aussi e, e, e, extension des trois villages mm-hmm. le dossier est au, à, à l'urbanisme si directeur de l'urbanisme Diouf nañu régler dossier boobu waaw parce que foncier tànk bi moom lañ jaay pour dem di def ay pôle urbain voilà donc beneen bi euh, le droit de émission comme c'est des terres des terres réquisitionnées aujourd'hui on demande la rétrocession de ces terres bu dee le littoral Ousmane Sonko les fonds du pétrole arrivent Sénégal dina moyen pour restaurer ce littoral li fa nekk nañ ko dindi parce que du dëgg du yoon nañ ko toj SOS littoral foofu la leen di xaar ñu ñu delloo le littoral en l'état peuple sénégalais bi yëpp ak les citoyens du monde di gis géej di fa mën a wàcce ñu bañ a fàttali littoral bi waaw du ma dugg sax si ay conséquences écologiques et environnementales du fi xaj mm. xam nga géej gi ñàkk jël littoral bi ñu fàtta bokk na si léegi ñun foofu la ñuy xaar euh, le nouveau régime et le PM Mmh. voilà di ko wax aussi profito nag ci chance bi ngeen ñu may. waaw bon vraiment suñu lettre de demande d'audience mu ngi wax mu ngi démb rek maa ngi am par des canaux détournés ñoo xamante ne jigéen nañ ko lool yor téléphone am ah mu ne euh, mu audience yi daf koy accordé après mu def sa déclaration de politique générale voilà bon mais ñun on patiente bu defee DPG ba pare SOS Étoile lañ koy ñaan mu recevoir ko parce que la diplomatie ne se fait pas dans la rue nga xam ne EGBOS ça tourne autour de 42 milliards bon ak yeneen i dossier bon ñu dem waxtaan ak moom bon seet nan la ñuy saafara yooyu et puis dëkk bi am jàmm quoi. Hmm. voilà mais mais Omar Diagne euh, Ousmane Sonko dafa jël mesure bi ci moment bi nga xam ne ñu ngi doon xaar conclusion rapport commission ad bi mu tegoon ci wàll woowu. Mm-hmm. waaw est-ce que amul lu paradoxal un peu est-ce que waru woon xaar déjà ba euh, conclusion yi wàcc ci rapport boobu ba ñu fësal. ko nit yi gis ko wi xam nga Sabine. Mm-hmm. damay bañ a gaawtu xam nga ñun dañu am expérience waat jëloon na ay mesures conservatoires bi mu paree suuf la uti Macky Sall jëloon na ay mesures conservatoires bi mu paree suuf la uti te nous parlons avec des preuves euh, mamel fii u faar bi euh, benn loi bu Senghor jëloon la loi 71 12 du 25 janvier 1971 moo protégé woon le site des mamelles def ko zone non aedificandi site archéologique patrimoine historique, parce qu'il y a un volcan éteint depuis l'ère quaternaire, euh, site sacré parce que le génie tutélaire de Wakam, Mungi Fofu, site archéologique, la direction du patrimoine d'Ika Saito. Aujourd'hui, l'ANMOFAM, saccage foncier, euh, sous le prétexte de mettre une usine de dessalement, bon, finalement, le projet aboutit à 42 parcelles du Fofu au mètre carré de à 2 millions de francs. Oui. Bon, l'IMOFAM, léegi nag ñun dañu maar ci ay mesures conservatoires yoo xamante ne ay kayit lu ñuy bind yëkki deskos ñu dugg fu ne après ñu gis ay poche wala jël ay nit yu sàccoon ah, yor tabax fii ay milliards ñu dem négocier ci suuf sénégalais yi duñ yëg benn médiation pénale après kenn du xam xaalis bi fu muy jaar ñun nous sommes des citoyens avertis dañuy topp ay dossiers depuis une vingtaine d'années. Mm-hmm. xam liy xew sénégalais yépp léegi xam nañ liy xew. donc ñun li ñuy xaar mooy euh, des décisions hardies voilà donc euh, jël nañ kii daal def na lii ñu ne kii lii la def war nañ ko sanctionner négativement ñu sanctionner ko négativement ñëpp gis ka suuf yi nga xamante ne na ay nit ak moom parce que j'ai dit plusieurs fois état amul suuf. voilà wax naa ko Macky Sall si biir pale bi mu recevoir ma. Mm-hmm. voilà boo xamee le statut juridique foncier état état bi juddu 60 fan la ame suuf te ñun suñuy famille lébu yi ñu gor dans les années 1800 ba pare titré suñuy suuf dans les années 1900 wax ma léegi foo état jëlee suuf voilà léegi état amul suuf parce que état bon dafay fekke rek un euh, principe un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ñëpp ànd si gis nga loi buy juddu. day fekk ñëpp ànd si ñu gis ne lii blocage la ñu créer loi la loi sur le domaine national c'est la plus grosse entreprise de dépossession des terres lébou voilà et aujourd'hui ni mu doon laale lébu yi mu ngi laal l'intérieur du pays yow gis nga foncier foo dem le monde paysan ñu ngi yuuxu ñu ngi jël seeni suuf suuf yi collectivité locale yi ñoo ko moom ak les familles yi jiitu foofu gor ko voilà boo demee si statut foncier lamana da nga ko fay gis laman laman dégg ngeen laman suuf kii fa jiitu gor ko bay ko valoriser ko moo ko moom léegi nag yëpp tubaab la ñuy indi naan ñëw leen titré seeni suuf def benn encart bu daw dans un journal def publication dans le journal officiel ñun ñuy jàng sax yooyu daf ñuy rëcc après ñu ne état bi moo ko moom di indi ay domaine artificiel domaine naturel ah domaine privé de l' état et après on a des gouvernants yoo xamante ne sans éthique ni morale ah ñoo xamante ne voilà ils sont dans l'enrichissement illicite d'une manière permanente c'est des moo tax ñu leen tuddee des prédateurs léegi nag un boo bëggee dem vers un développement durable et endogène il faut que les ressources et nañu xam ne la première ressource du monde c'est la terre voilà looloo tax la la la la la grande monarchie la de Victoria reine Victoria voilà ñu am ay suuf Afrique fële au royaume des Grands Lacs ba Australie léegi suuf mooy la première richesse du monde moo tax boo jëndee suuf ci kaw nga moom mais moomoo suuf sol bi loolu yëpp c'est régenté bu fa pétrole wala jamaa feeñee dañ lay exproprier toxal la après nguur gi jël ko waa mais ban nguur nguur gi nag dafa war a nekkal peuple bi mais fii liñ ci gis boobu ba léegi mooy spoliation xañ ak ak yelleef say population ah toroxal leen ba pare nga gis ñoo xamante ne dañuy jiital seeni biir riba rek la ñuy lekk guddeeg bëccëg son Ousmane Sonko nag le premier ministre ak Bassirou jomay fay Diakhar Faye ka nga xam ne moom ndengleer mooy euh, loo xamante ne lu mu dund dans sa peau kooku moom am na lu mu dund ci cosaan léegi nag ñooñu peuple bi dañu am un immense espoir ci ñoom j'espère que lii slogan bi ñu indi jubal jubbanti foofu rek la lee la leen sénégalais yi di xaar alors euh, buñ ci nekkee ah ñi ñi dinañ leen accompagner ñu si newul ñoom wan nañ ñi ñi yoon bi waaye wan bi mooy gàtta gàtta bi rek voilà donc parce que euh, noonu rek lay mën a demee li ñuy wax nii même mën nañ leen ko wax si xam nga dañ ne l'obéissance à la loi et le seul chemin de la liberté mais après on a di la loi est contrainte l'absence de contrainte est anarchie mais après on a di le, le dilemme entre l'obéissance à la loi et le besoin qui peut parfois surgir de désobéir à des lois profondément immorales ou inconstitutionnelles, cela est une autre sorte de désobéissance civique, la seule, à mon avis, qui soit vraiment défendable en tant que question de morale sociale. li ma mujj wax Martin Luther King moo ko waxoon. muy affaire u désobéissance civique. et ñoom ils avaient même appelé à ça donc fondamentaux yi mu noonu. et nous sommes des gens de conviction nous restons dans ces fondamentaux. Mhm. merci kon daal kon daal yéen pare ngeen pour waxtaan ak euh, PM wala ak euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour am solution bu définitive ci mbir mi. loolu rek gis nga ñooñu euh, nañ ñu oo SOS littoral ñu wax leen loo xamante ne kenn mënu ko wax ci pénc. luñ mhm. ko wax publiquement parce que aussi ñun dañuy am responsabilité. Mhm. mënuñu toog ak Macky am lu ñu wax ak moom génn di ko wax si biti voilà donc euh, loolu dañ bëgg ñoom ñu recevoir ñu ñu wax leen ko mënuñu xamal l'ancien régime ay njombe bon yoo xam ne ñoom newatuñu fi ñu ñëw lépp di ko teg nii xam nga si dëkk bi fitna di jox wala parce que loolu day tax des citoyens sénégalais aigris après ça va se retourner contre ñoom ñi fi nekk nii moo tax ñu bëggoon en toute responsabilité ñu ooñu ñu toog ak ñoom dans une séance de travail ñu jébbal leen dossiers yi ba pare génn seeni bureau toog ci mbedd mi ubbi suñuy bët ak suñuy noppar tekk ci ñoom ba xam ndax ñoom ñu ngi ci jub jubal jubanti ndax ñu ngi corriger alors euh, musiba yi fi amoon yëpp voilà noonu la quoi parce que ñëpp mënuñu falu mm-hmm. te un pays pour le construire il faut ku nekk dugal ci loxam voilà Sabine daal ñun lii mooy suñu. Mm-hmm. taxawaay voilà euh, en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax Omar Diagne ci tontu bi nga tont suñuy laaj. merci beaucoup à vous que m'avez donné l'opportunité de parler sur ces questions. Mm-hmm. ñuy fàttali ne Omar Diagne yow yaa jiite SOS Littoral jërëjëf.